ax di la dalal nga fekk si ñu euh, ak euh, Sensei Yatma Lo mi nga xam ne euh, ñun ñoo fas yéene partagé li nga xam ne mooy waxtaan bi ñu ngi lay nuyu baax Salif. maa ngi lay fay Pape di nuyu sa auditeurs yi di présenter sama excuse yi. <laughs> voilà donc ni ñu ko waxee ñu déglu rétro bi alors première question bi nga xam ne moom laay am mooy d'abord déglu ngeen li nga xam ne moom mooy rétro bi nga xam jéem nañ ko def ci 2019 bi alors un commentaire lu leen ci gën a marqué ci année bi en ci année sportive bi bien sûr seen sa yàlla <clears throat> bi mu nuyu euh, auditeur yi ba pare nuyu Salif Diallo euh, xam nga bo boo jëlee bilan def ko danga naan ndax dafa positif wala dafa négatif. Mhm. man dama gis ni dafa positif. parce que euh, li tax sax mu gën a positif si man mooy boo ñëwee si wàllu football bi parce que football jekk nañu foo xam ne mosuñu foon ak àgg def nañu ay performances yoo xam surtout ci petite catégorie mosuñu fa àgg. donc loolu rek euh, war na tax ñu euh, am un peu de retenue c'est-à-dire mën a xoolaat analyser pour que bu ëllëgee ñu mën a weesu jéego yooyu boo duggee ci basket bi lu bari war nañ ko ci wax basket bi lu bari war nañ ko ci wax. parce que déception bi ñu am fii am nañu déception c'est vrai que dem final aussi c'est une consécration mais am nañu déception mais yooyu yëpp ay analyse la boo ñëwee si euh, roller par exemple nga xam ne euh, euh, boo demee Jeux olympiques 2024 dañu xaw karaté bi pour dugal break dance dugal genre roller rek yooyu yooyu tamit ay waxtaan la beneen satisfaction bi mooy buñ nee JOJ 2022 dañ naan

muy lamb ji muy handball bi en grosse satisfaction du handball man non la ko mhm. euh ma yakar ni li wara def rek pour conclure lolu moy mhm. encourager euh, toutes les fédérations. djema mhm. set moyens yi ñi mëna mettre à leur disposition. pour que ñu mëna a djégo yi nga xamné fa la yémon tout à fait euh, Salif euh, même question bi euh, li nga xam ne moom année bi de façon globale gis nañ ko ci discipline yu bari on a eu plus ou moins des satisfactions Il yi également ni ko sëñ Saliou junjee sànq yaakaar gu tas am na ci yow de façon globale 2019 bi soo ko doon nat ban not nga koy jox. <laughs> d' accord ngi leen di remercier encore may remercier sama grand frère El Hadj Sëñ Yatma mhm. bon mais man d'abord abord sax Pape xoolal ñaata temps nga def pour wax pour def tour d'horizon bi mhm. d'abord abord moy ndik nek problème ci sport sénégalais mhm. le Sénégal à peu près bo xolé bo Sénégal nombre même nombre de fédérations la am comme ay dëkk yu tudd comme France mhm. comme Grande-Bretagne te xam nañ ne sur le plan économique il y a pas photo entre ces ces pays là ak suñu boss je pense que dëkk buy dox suñ lay falee njiit faut mu dina ay soo amee ay responsabilité da ngay jël décision Sénégal saupoudrage la ñuy def. mënul ñu am ay 47 fédérations. 57 mhm. fédérations mënul nek mhm. état bi dafa nar a décider c'est mon avis sama avis personnel la puis mun naa ko def am fu nek mhm. mu ne 10 disciplines sportives laay jël. olympique ak non olympique yo xamné ne foog nañ ne Sénégalais yi foofu la ñuy gëna a regroupé wu. ñu jox leen moyen ñu def ben plan programme ci quatre ans. wala ci huit ans ñu li bo len ko bo leen ci eggee état continue len soutenir. Mhm. bo len fa eggulee état bi bo len ginaaw jox ben plan. Mhm. par contre suñu loi fondamentale boy suñu constitution. Mhm. permettre na ku nek ku mu neex. nga def discipline bu la neex nga créer ay association mais état bi par rapport à budget fay dessiner des sports yi la ci def moyen loolu bu passé suñu defee kii analyse boobu analyse résultat yi bon accepté on n'a pas eu de pour man résultat yi am na foo foo xam ne mhm. éclairci mhm. par exemple ma wax na ko euh, judo karaté mhm. mais bu ñu foog bu ñu fàtte ne 99. benn sénégalais nekk na champion du monde karaté mooy Mamadou Ali Ndiaye 2000 mille nekk nañu vice champion du monde ak Fodé Ndaw avant ça, il y a Amisek 97 nek le champion du monde karaté. 2003 ou 2004 Ablaye Diop le champion du monde. Donc on a tutoyé le monde. Mhm. Légui nak fan lañ nek ay massification di médailles sur le plan africain. Ça veut dire qu'il y a un recul. Mm -hmm. Éclairci rek mhm. Parce que année yi soko jëlé lan mo karaté, judo, affaire u tàppet la da ragal danga nga bëqat alors que war am personnalité boo xam ne koo téye mu taxaw bon xam nga quand tu l'égratignes comme ça dafay fippu gis boobu alors mu fippu entraîneur yi ma dem si entraîneur wax ak moom entraîneur ne ma le le français là ne ma dégg naa ni nga wax ak booy bi mais c'est bien mhm. donc